إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسخ الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الصافية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله إن التأمل إلى ما يحدث في هذه الفترات من رحيل زعماء في الإسلام والخصام المذموم التي دارت بين المسلمين يلزمنا لفت الأنظار والتناظر بيننا والتناصر فيما بيننا يواسي بعضنا بعضا بالحق ويواسي بعضنا بعضا بالحق عباد الله لذا يذكرنا قول الشيخ العظيم الشيخ حاج مالك سي في أخر خطبه حيث يقول أتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتعاميتم كما تصاممتم على العبر والجو... وال... على العبر والزواجر فكيف الحال إذا نزل ضيف المجتاح فما له قرن إلا الأرواح الله الله عباد الله irji'u ila rabbikum fafirru ila allah inni lakum minhu nazirun mubin mbokki jullit ñu ngi sant boroom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ni moo yeyoo cant di ko wàccee ci wàccuwaayam di laxatu ci moom ci suñu ay bon bonu ba kenn ak suñu ñaawtee fi jëf di wax ne moom moo yeyoo ñu jaamu waaye moo yeyoo ñu wéetal ko bañ koo bokkaale di seede na amul benn buur ku dul moom di julli di sëlmal ci sangu sangay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne bàyyi nañ ci keppaar gu leer nañ bàyyi fi jàngale goo xam ne leer na koom leerug jant guddeem ak bëccëgam ñoom ñoo yam mbokki jullit ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ndénkaani borom bi tabaraka wa la ba mu dénkoon ñi jiitu woon ak ñi mujje borom baa ngi wax ci téeréem bi ci suratul xasr ne yéen doomu aadama yi ragal leen yàlla te képp kenn ci yéen nay xool bu baax ëllëg lan lay fekk ci kanamu boroomam bu ko defee dana ko dolli góorgóorlu mu nekkee ci kaw suuf jaamu yàlla ak rafetal li ngante mooy topp gi mbokki jullit yi bu ñu defee taxaw seetlu ci jaar jaari yi ngante ni moo fi xew ci li ngante ni mooy ci weer yi ak ci ayubés yi jàll danañu seetlu ne borom bi tabaraka wa mu ngi ñuy junj waaye mu ngi ñuy yóbbante ay siñaal ci loo xamante ne mooy suñu wareef ci kaw suuf mbokki julli junj yooyu mooy borom bi de ñu ngi seetlu ñu ñëpp ubbi suñuy bët di gis wala di dégg ay nit ñoo xamante ne ñu baax lañu woon ay jaamukatu yàlla lañu woon ñii jihaat seen yoonu boroom ba wuy seen boroom ñii liggéey ci li ngante mooy yoonu daawa ba daanu ci yoon wi waaye ñeneen ñu góorgóor seen kéemtalaay kartan waaye ba yàlla dogal ci ñoom li ngante moom mooy faatu mën nañ ci lim al cheikhul mujahid al imam Alioune Badara Ndao kooku jaar na fi al cheikh Abdourahman ibn Abdul Quddus al taifatul muridiya al alimul allaama al imam Moustapha Guèye wa am bil amsi wa laysa bi baid al imam al ustaz Anfa Diouf wa ams faxat dafatna ustazana Ahmad Thiaw mbokki jullit ñii ay jëmm yoo xam ne yu baax la ñu woon imam Alioune Badara Ndao liggéey na ba ci lingante nga mooy toolu xare bi a Cheikh Abdourahman li liggéey ci yoonu murit ba wuy li nga mooy boroomam ñu seedal ko ak teey ak tabe ak mana jaamu yàlla ak jàngal li nga lislaam al oustaz Moustapha Gueye nga xamante ne doodu ko présenté barke Dembo Ndiaye ñu ngi ñuy tàggewaat jaamu yàlla bu mag moom te liggéey na ci yoonu boroomam oustaz Arfan Diouf démb ñu tàggewaat ki nga xamante moom mooy oustaz Amadou Thiaw ñooñu ñëpp mbokki jullit yi ñu xam ci ñoom ak mbaax ak liggéey li nga xamante mooy liggéeyal seen boroom jaamu yàlla waaye liggéey li mooy lislaam loolu lépp la la ñuy fàttali mbokk mooy ñu laxasuwaat ñu defar defarwaat nekk ci kaw suuf li nga xamante moom mooy jaamu yàlla di bàyyi xel bés bi nga xamante ne moom la ñuy dellu suñu boroom moo tax loolu la Cheikh Seydi Hadji Malick waxoon ci benn ci xutba bi nga te kenn dootu ko présenté nga xam te ne doon na wax ci biir ne ndax da ngeen di tabax ay kër yoo xam ne doo leen ci dëkk ndax seen yitt ci kaw suuf nekkul lu dul rek di tabax ay kër muy gën a kawe wala muy gën a rafet te kër yooyu wóoru leen yéen ciy dëkk mu ne ndax da di dëkk di dajale ci alal ak ay am-am loo xamante ne doo leen ko lekk ñaata ci ay doomu aadama ñoom ñoo yor alal ginnaaw ba ñu ko liggéeyee ba mu bari ñu faatu dem bàyyi ko fi seeni way doona ñoom ñoo ko denc beneen bi moo mbokki jullit mu ngi wax ci biir xutba ba léegi ne ndax da ngeen di tëx ak di luuluulu wala ngeen di gumba gumbalu ci waaraate ak borom bi nga xamante ne mu ngi leen koy waa bés bu nekk ana naka ngeen di def bés bu fekkente ne malaaka mi ngante mooy jë ruuxi ñëw na gën a si leen ñëw na te fëgg seen buntu kër te su keroogee amul dara luñ koy terale nee na gan googu amul dara luñ koy terale lu dul li ngante mooy ruux loo ko mën a jox moo xam ak nan la wala mu nekk li ngante mooy lu nit di xéewaloo mbokk yi gan googu soxlaawul lu dul nga jox ko li ngante mooy sa ruux nee ba jotaay boo bés bu jotee waxtu woo bés bu dikkee su boobaa naka ngeen di def kon mbokki jullit yi nañu rafetalaat li nga xamante mooy suñu nekkin nañu delluwaat suñu boroom ñu jaamu ko waaye nañu fexe suñuy diggante mu nekk lomte mooy lu rafet ndaxte boroom bi tabaraka wa taala moom ma wax ci téere bi ne wa quulu linnaasi xusnan na ngeen wax ci doomu aadama yi képp koom de yéen a ngi yëkkati kaddu di ko jëmee ci moom borom bi nee na na nekk wax ju rafet kon suñu ay diggante ak suñu ay jëflante dara waru koo tënk lu dul lingante ngante mooy lu rafet lu rafet ci li mooy wax waaye lu rafet ci li mooy jëf kon mbokki jullit bu fekkente ne lii moo ñuy xaar lii mooy li moo nekk suñu kanam di nattu bu rëy waaye test boo xam ne xamuñu ndax danañ ci jàll est-ce que jullit yi tey war nañoo nekk di li mooy du xuloo ak di taasante ak di yàkkante li ngante mooy lu ñaaw ñu ñëpp ñu ngi gis li ngante ne mu ngi xew ci li mooy ci biir jullit ñi bépp li ngante ne mooy ay fan wala ay semaine ci li ngante ne mooy ay waxante ay wax yu ñaaw ay bindante li ngante mooy ay wax yu ñaaw te lépp ñooñu ñëpp nekk li ngante ne mooy ay jullit abdullah azam daraan wax ni wa xaysuma zukira al islaamu fi baladin adatu arjauhu min lubbi awtaani ab jullit de dëkk bu mu mën a nekk wala penc bu mu mën a nekk bu fekkee dafa yëkkati baatu laa ilaha illa allah nee na kooku damay jàpp ne sama mbokk la moo xam couleur bu mu mën a yor walla tariixa bu mu mën a yor wala xaraka islaamiya bu mu mën a tënk ñëpp ay julli lañu waaye li ne mu ngi xew si biir julli ñu mbokk loolu lu ñuy ñaalu la depuis li ngante mooy gàmmu ki bu fekkente ni nitu yàlla boobu wax na kaddu kaddu goom te ñun ñu gis na njuumte am na ci jullit ñëpp ñoom ñëpp ginnaaw gi it ñum njuumte am na seen biir ndaxte ñi nga ñoo taxaw di wax anam ba ñuy waxee ak ni nga xam te nañuy gàggantee baaxut borom bi tabaraka wa taala daf ne innamal muminuuna ixwatun jullit yëpp ay mbokk lañu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne axaak zaliman aw masluman dimbalil sa mbokk moo xam dafa tooñ wala dañu ko tooñ ñu ne ko yow ki yàlla yónni ñun de xam nañu naka lañ koy dimbalee bu ñu ko tooñee waaye bu tooñee naka lañ koy dimbalee yeneen tamit ne tey leen ci loxaam ngeen nekk da tooñ kon mbokki jullit yi bépp doomu aadama yéen bi sallallahu alayhi wasallam dana lan xataa kullum nu aadama xataa wa xayrul xataaina at tawaabuun yenn bi sallallahu nee na doomu aadama yëpp ay juumkat lañu doomu aadama yëpp ay juumkat lañu waaye ñi gën si ñi ngante mooy ñi juumkat mooy bu ñu juumee ñu delluwaat li ngante mooy ginnaaw mbokki jullit yi moo tax bu ñu seetloo suñu benn mbokk dafa juum ci wax wala dafa juum ci bind nañu ko li ngante mooy tanaasi wa tawaasi nañu ko dimbali waaye nañu ko laaye biir ci li ngante mooy laay bi bu rafet waaye su fekkente ne laay biir aw xaste lay nekk su boobaa du noonu su fekkee laay biir yëkk li ngante mooy kàddu gu ñaaw tontu la su boobaa du noonu lan lay jur li ngante ne moo xew te lii xew nii mbokki jullit yi du ñu yóbbee fenn lu du ci li ngante mooy gën a féewloo te loolu nag moom mooy suñu jafe-jafe damay wax ne Sénégal seen jafe-jafe mooy lan mooy dañoo sixlunte waaye dañuy beddunte ñi nga ne ñoom dañu wax ni ñee dañoo tënku ci kuréel ñoom de dañu leen effacé rek leen ne duñ waxaa ñoom ñii nga gis ne ñii kat ñoom dañu ne dañoo iltisaam ñoom kat sunna lañu gëm ñoom ñu jàpp leen beddi leen fële waa su fekkee te ñun nii lañuy ñuy dundee réew mi kañ la jag ñii bu ñu seexloo ñee ñële kat jàpp na ñii bokkuñu ci yoon wi su boobaa mbokki jullit dañu gën a féewaloo jullit yëpp ay julit lañu képp kuy wax la ilaha illa allah jullil nga jullil boobu nag bés bu juumee moo xam ci gëm-gëm la wala mu juum ci li ngante mooy wax wala mu juum ci jëf dañ koy gàgganti waaye nag billati hiya ahsan comme naka yàlla xoon ca suratu li ngante mooy yusuf haadihi sabili ad'u ila allah ala lii mooy li ngante mooy sama yoon may woote ci yoon yàlla waaye dinaa wax ci ni mooy ci lu leer waaye tamit yàlla tabaaraka wa taala moo wax ci alquran ne boo leen di oo doomu aadama yi na ngeen leen wax ci li mooy anam mu rafet mbokkee lool nekk benn njumte beneen njumte bi mooy ñun su fekkente ne dañu bëgg doomu aadama moo xam nu mu mën a toll ci ñun wala tolluwaay bu maanaam ci ñun mbokki julit nañu nañuy nangu ne doomu aadama boobu ñun dañ ko war a dimbali su juumee dañ koo war a jàppale su fekkee dafa fa li nga xamante ne mooy faxasalu dañ koo war a yoor suñu loxo yéttikiwaat ko mu jóg tegu ci yoon bi waaye duñu dimbalante ci li nga xamante mooy lu dul noonu su boobaa kat moo tax ma ne ñaari kuréel yëpp dañ fay gis li mooy ak njuumte mbokki jullit yi yonente bi tabaraka wa taala moom moo gën a màgg ñëpp yéen sa salam moom moo gën a kawe bépp doomu aadama ci kaw suuf pourtant borom bi tabaraka wa taala daf ko doon gàgganti borom bi joxañ na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk lawlaa kitaabun min allahi sabaq la mastakum fi ma axastum azabun alim fi ma axastum bu dul woon sa kàddu borom bi jiitu ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla jéggal na la lépp loo mas def lu jiitu wala lu mujje dana la dal ci lii nga jël nii tey li nga mooy du muy métti loolu mooy keroog ba nga xamante ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na position ci ñi nga ñoom lañ jàppoon ci badar di yeex lan dañu leen waroon a rey yéen sa salam jël leen laaj leen li ngante mooy fidaaw ñii mu jàngal loolu li ngante mooy ay julli ñu xam seen diine mu doon le libéré ak loolu lépp yàlla tabaaraka wa taala gàgganti ko yàlla gàgganti waat yonent bi sallallahu alayhi keroog ba nga xam te ne silmaxa ba ñëw na ci moom di ko laaj di ko jàngalu mu xamal ko li ngante wàllu diineem yéen sa salam ci waxtu woowu mu ngi doon yittewoo ñeneen ñoo xamante nekkuñu ci yoon wi comme moom de gëm na ba nopp yonent bi jàpp ne ñii gëmagul muy kilifa yi màkk yi moom occasion toog ak ñoom kat ñoom ñoo gën a yey mu wax ak ñoom convaincre leen ci lislaam waaye ak loolu lépp borom bi tabaraka wa taala yedda ko ci moom la def noonu yeneen li moo waaxif ci alquran mbokkee bu ko doon lim duñ fi jógee waaye beneen bi moom la ñuy rek yàlla tabaraka wa taala yedd ci lan wala ñu nga xamante mooy saxaaba yi ñëw nañ toog yenente bi yenente bi jël benn xalaat keroog ci li nga xamante mais bi nga xamante jël na xalaat keneen dafa jóg taxaw ne ko yenente bi fekkee fii nga toog nii sa xalaat dong la du fii moom mooy tooguwaay bi waaye nañu dem fële su boobaa su la ñuy gën a jeg léegi su fekkente ne yenente bi nag moom moo gën a màgg ñëpp keneen ku dul yenente bi sallallahu wa sallam mbokk yi mën nañ ko gàgganti keneen ku dul yenente bi mën nañ ko dimbali laayeke biir ngir ñu ñëpp ñu àndaat tegu ci linganté mooy yoon ndaxte loolu mooy li mooy li gën waaye nekk di féewaloo ak di tiisande ak di wax li mooy kàddu yu ñaaw loolu di li mooy lu rafet ci derul islaam loolu mbokk yi du lu rafet ci derul lislaam jullit ñi nañu euh, jéggalante jullit ñi nañuy baalante waaye jullit ñi nañuy li mooy laayante biir ngir ñun ñëpp ñu ànd dem fi li ngante mooy suñu àjjana borom ndaxte kenn si ñun ak loo wuute ak nit bëggoo wala yéenewoo ko ëllëg mu def fi nga xam te sawar waaye comme kooku woo ko loolu lii nga mën a dimbalee rek mooy nga dimbalee ko ba aljana ci nga xam te mooy bii suñu mbébét ñun ñëpp ñu ànd fa dem fa waaye moytu lépp loo xamante moom mooy feewul suñu diggante aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur wa kafa وعلى عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبائي في الله لنتذكر دائما فديننا واحد ورسولنا واحد wa kitaabuna waaxidun wa qiblatuna waaxidun fa izan limaada nurdi an yufarriqana alfuro mbokk jullit yi ñu ngi santaat borom bi tabaraka wa taala comme ni mu yeyoo ñu ko di julli di ci sangu sangay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu wàccee waamee xéewalam ci moom wàccee ko ci ay saxaabaam ak képp koo xam ne xàll na seen yoon ba keraa muyu ji borom bi mbokki jullit yi nañuy bàyyi xel jamono ji nekk mbir yi ngante ñun ñëpp moo ñu boole ndaxte suñu diine mbokk yi benn diine la ñii newuñ ci li ngante mooy lislaam ñeneen ñi nekk ci kéefër ñi ne ci kéefër ñoom seen mbir leer na waaye ñi ngante ñoom ñëpp dañu nekk ci tool lislaam ñu ñëpp mbokk yi ay jullit lañu ak nit ki kuréel bu mën a bokk ak luy idéologie am ab jullit la waaye nañuy bàyyi xel na it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp moom mooy suñu yonent ku yëkkati baat ak képp koo xamante ne mu ngi yëngatu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la bëgg ñee dañ naan yonent bi la rey ñee di woote ñoom ñooy sopp yonent bi sallallahu alayhi kon ñun ñëpp yonent bi sallallahu alayhi benn yonent boobu lañu ñu am beneen bi mbokk jullit yi mooy suñu téere benn la ñu ñëpp alquran la ñuy jàng alquran mooy suñu discours alquran mooy téere bi nga moo ñuy digal moo ñuy tere kon ñun ñëpp nañu tënkuwaat ci li nga mooy téere boobu nañu delluwaat ci alquranu karim ngir muy att mooy suñuy jafe delluwaat ci alquran di si nattee li nga xamante mooy suñuy jëf xool li nga mooy li ci jub ak li nga moo si dëng beneen bi mbokki jullit yi fa naa waaxidun ñun ñëpp si xibla benn la jullit yëpp bu ñu kàbbaree ñu ngi jub li nga xamante mooy alkaabatul musharrafa néegu yàlla bare ngante moom mooy kaaba gi fa la ñuy jublu gisuñu benn jullit boom te ne buy julli day wan li ngante mooy penk bi du mooyu ko wala mu jëm li ngante mooy beneen wet di fa julli waaye benn wet dong la ñuy jublu mooy li ngante mooy kaaba gi waaye ñoom te lii yëpp ñoom ñoo ko bokk mbokki jullit yi ñoom te yii yëpp ñoo ko bokk yii yëpp benn la ci ñoom lan moo tax ñuy nangu lan moo tax ñuy xajal ay li ngante mooy détail ak ay furon di dox suñu dëggante mbokk loolu waru am yii ñu boole moo ëpp fuuf li ngante mooy li ñu wuutale benn borom xam-xam daka daan wax ne li na taawana fii ma tafaxnaa wal yaazur baaduna baadan am maxtalafnaa fii nañu dimbalante ci li ngante moom moo ñu boole l'islam bi ñu boole téere bi ñu boole waaye xibla bi ñu boole mbokkee nañ si dimbalante waaye nañuy jëllalante di baalante di laayante biir ci mbiri nganteel si la wuute loolu bu ñu ko defee rek mbokkee danañu am jàmm fi ñu daanelee mbokki jullit yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamante ne mu ngi wuy ji boroomam bokk na ci ay ndénkaaneem mu ne yéen jullit ñi ngan la waay bu leen dellu sama ginnaaw ngeen di wuute ngeen di texala ko ñenn si yéen di jor li ngante xamante ne mooy loosi ñeneen ñi tere bu yenente bi ndénkaane boobu nga xamante lu ko yitteeloon njëkk muy wuy ji boroomam nekk ci kàddoom yi mujje mbokk lii lañu ñu dénkoon ngal la waay nañu sàmm dénkaane yonente bi ngal la waay góor góorgóorlu ci li nga xamante mooy liy jëmale lislaam bi kanam nañu góorgóorlu ci li nga moom mooy benn le sàppeb jullit ñi waaye nañu moytu lépp loo xamante ne moom mooy féewale jullit ñi waaye mbokk yi bu ñu dajalee doomu aadama yi di leen wax nañ leen wax li mooy lu leen di jëma seen kanam bu ñu dajalee doomu aadama yi di leen wax di leen waar nañ leen waar ci lomte moo leen jëme seen boroom nañ leen dind ci li ngante mooy seen jikko yi ñaaw yi waaye nañu leen dind ci li mooy seen ñàkk taxaw seen wàllu diine loolu rek bu ñu ko defee mbokk yi jàmm dina am yal na yàlla bet na li mooy jullit ñi yal na yàlla li ngante mooy benn la jullit ñi yàlla bu def li nga xam te mooy suñu wuute suñu biir rabbana taxabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka tatawabu rahim inna laa yaamul bil adli wal ihsan wa itaai zal qurba wa yanha anil fahsha wal munkar wal baghi yaizukum laallakum tazakkaruun uzkuru llaha yazkurukum washkuruhu yazidukum wa lazikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun wa qumu ila salatikum yarhamukum